la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha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

إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله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 فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله sëriñ Cheikh Ngunda nee na mi ngi lay nee na mi ngi eh? waaw waaw nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare bu baax dafa ne nag dafa dikkoon si liggéey bi nga xam ne muy ndigal lii nga xam ne ndigal lii ngay taxaw fii mu ne muy ndigalu tabaski yi yi nga xam ne da koy waaj di ko yóbbul sa sëriñ ba moo du Mountakha eh, nee na taxawaay boobu yitte jooju moo ko yëkkati. nee na nag euh, euh, andi na fi juróom-ñaar fukki xar ak ñett juróom-ñaar fukki xar waaw ak ñett waaw. waaw daa wax ni xeeb na ko sax ma ne loolu day faal kawe na lool waaw waaye daal. xam naa li si de Serigne Moussa <laughs> moo koy jottali waaye daf maa xoon ni naa wax loolu sëriñ bi waaw ne ne ne mi ngi yeesal nag ak pas-pasam ak ak jaayanteem ak ak njëbbalam ak yaakaaram mu jëm si yow. yàgg naa teew fii di di seereel doomu aadama yi ngir nu am si taw féex sa digg ak moom lan moo ko waral ak taxawaay bii mu am fi yow lan moo ko waral la mu si jublu nag yàlla xam na ko Cheikh Rafal xam na ko maam Ngunda xam na ko Serigne Modou Fall mbenn xam na ko waaye dafa bëgg nun taalibe yi nu barkeelu si loolu ndax nu am si taw féex muy ànd boo xam ne na mu ko leerale loolu la yaakaar naa képp ko amuk dégg danga nga du amuk jaaxle ci ab taxawaayam ci sa wet ci nii nga xam ne noonu la taxawee sa wet muy waxtu wu ne mu ngi teew fii ndigal loo am mu ànd kook yow ba nga am sa ndam guddi ak bëccëg am xelam ak dooleem ak jëfam léppam mu jox la ko ba desalu dara loola nag moom lii da see topp si rek ndax dañ see toll muy liggéey tabaski yi mu daal di ñëw nag andi nag aw sasam da wax ne xeeb na ko lool te loola ñun leer nañu xam naa ne yéene naa def lépp lépp lépp ndax ab xolam bii li si biir boo ko seetee li si nekk ëpp na loola waaye nag jëf ji moom tuutut faal rëy na lool juróom-ñaar fukki xar ak ñett moom la àndi jébbal ko sëriñam yow mi sëriñam di xaritam di magam di léppam mu doy loola si lépp ànd ak njabootam gii nag nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi di ko taxawu. xam naa li si dolli ko mooy Serigne Baye Moustapha Seck mii eh, am na kàddu yu mu si war a yëkkati nu jox ko mu yëkkati ko waaye loolu rek la ma waxoon naa ko seere Faal xalifa généralu Baye Faal yal na yàgg te ànd ak wér akuk tal akuk man ci barke Cheikh Modou Fall Mbenda ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina sëriñ bi de sëñ Cheikh Ngunda moom ab liggéeyam ci yow ñëpp la war a liggéeyal waaye moom nag su doon gàncax ma ni dug njëmbat daa too rek mu sax ndax wajuru mu baax wa maam Saliou Fall sa wajuru baax wa la ko maam si Ibrahima Fall jébbalan mu ànd ak moom di ko liggéeyal ba ba mu demee ba ba nopp koo gisit dañu duutuma tàllal kenn ay loxo ndax man man Seera Fall saa baay moo ma tànnal ëpp sëriñ kon bu ñu demee ba nga xamante ni naka jee kenn yow a Cheikh Ibra Fall ndax mosu fee jóg ndax sëñ Moussa Ka dañuy sëñ daam yëgal ni jaan dangar jëli judduwaale ñàngoor ak ngooloo lu ci luggul jaale ba nga doon ak Cheikh Ibra nag ci jitaay bii mu ànd ceeg yow te naka jëkki daa ànd nag yow mu ay pos-posam moom gi mu àndal nee na la joxee benn yéene na junni da koo mënut waaye wóor na ko ni soo ko ñaanalee junni ba mu yéene dana ko man te su ko manee dina ko def nee na ko ñaanal ba kattanam gën a yokk saa yiren wa baatinan ne lépp loo xamante ni yëg na ko muy sa yitte am na lu si ma wëjjur waxan sëriñ Abdul Ahad Mbàkke sëñ Cheikh Fall Ngundam mi ngi la koy wax ne na dafa am lu muy wujjeel ci sa xol bii li sëñ Cheikh Fall Ngundam wujjeel ci sa xol bii nag muy sa yitte ndax yitte dafa dafa dafa sori ci xolub boroom ba nga xamante ni ku fu yitte ja tëddeen mu tëdd fa loo yitte woo da koy faj su ko fajee ne fu yitte ja tëddeen mu tëdd fa sëñ Cheikh Fall Ngoné nee na na nga ko ñaanal te dimbali ko ba loo yitte wooti ma faj ko ba yitte ja fu mu tëddeen ci sa ci sa xol bi mu tëdd fa nee mi ngi ñaan loolu nga ñaanal ko di ko yelwaan bu baax a baax waaw ah, nee nee na mi ngi mi ngi dongo bi yi mu àndal nag a ah, mi mi ngi lay séeréel ah, seenu cant ci yow ndax nangu nañu ànd ak moom liggéey sëriñ bi nee na mi ngi leen soññ saa xam ne ku si benn jéego sikki téeméeri waral na la la sëñ fallu seen rek ne mi gi mu àndal ne fabawaat rek sëñ sëñ ngun da neenan fabawaat sëñ daam neenan nee na mënatu see wax lu sori de nee na daal moom mi ngi nii rek wax na ko keroog sa sarax sa sa njaareem sama kanaman mii waaw waaw nee na ku dul yow. day maslaa rek amul amul si soxla. yow yaay yaakaaram yaay léppam. nee na njaboot gii mu àndal di la liggéeyal. ñi ñëw ak ñi ñëwut. nee na dafa bëgg nga baddil leen. ñu mën a ànd ak moom ci liggéey bi. ba ñoom ñëpp ñu làq sa ngërëm. ndax moom nee na dafa naqaree àndal. Omar nee na dégg na keroog Omar Doumbouya di ko wax. naan Serigne Cheikh Ngunda. daa xam li ko maamam defal. ba tax na ku muy àndal ku ne. lam bëgg a ànd ak yow. boo sa jaarut. boo danaan la tàllalal say loxo ma ñaanal la. nga dem ma dem. loolee nag. nee na xam li ngeen ko defal moo tax. ñoom ñii ak moom. na ñoom ñii nag ànd nañ ci ak moom. ak ña waaw ñépp rek. kon ñu ngi nii rek. kon waaw <laughs> <laughs> jërëjëf Fall mi ngi lay sant bu baax a baax. nee na mi ngi lay ñaanal. nee na sa borom may la ak wér. ak fan wu gudd. ak fan wu gudd. nee na lépp lu la nar a dogale. yal na ko sa borom yal na ko fi sa jëlee ba faw waaw. nee na yow itam. maa ngi lay gërëm nee na gërëm na la bu baax mi ngi lay gërëm bu baax. ndaxte nee na topp gii nga topp Serigne Modou Fall Mbenda. te te faale woo lenn. lu ma topp sëriñ lu dul topp sëriñ bi rek. li nga ko toppee. nee na loolu yàlla dina la ko fay. nee na sant na la bu baax Fall. waaw waaw <laughs> jërëjëf Fall jërëjëf Fall cantuk sëriñ bi de xam ni ndax xam naa nun taalibe yi ñooy lot ndax sëriñ moom du lot. waaye waaye waaye taalibe yi moom moom moom danañ lot si cant ndax képp koo xam ne xam nga diggante ah sëriñ sëriñam Amdi Fall ak sëriñ Cheikh Fall mii. Eh, wax doo si amuk jaaxle ah, ndax Serigne Cheikh day fii mu àgg nii eh, kenn mënu koo weesu joxe sa lépp xam naa la sëñ Touba waxoon yonent bi ne ko jox naa la lépp Cheikh Rafal wax ko sëñ Touba jox naa la lépp ba desalu ma dara moom mii de loolu la def ak sëriñam bii te lool tali bi ñëpp mat nañ ci seere waaw ah, lii muy lii muy feddali nga xam ni du mënu koo sax a génn si aw lammiñam ndax ndax ndax ndax sori gu mu sori si moom nun ñëpp nu xam ne lii lay dëgg si moom te sori si moom loolu yi tawféex la si nun murit yëpp nun taalib yëpp tawféex la si nun moo tax lii mu seere ni murit yi ànd ak moom mu seere ni ku naqaree àndal la ndax fi mu teg tànkam bëgg a dem képp koo xam ne ki dëggaloo si la nga ne du ngeen mën a ànd du ngeen mën a ànd de ndax moom daa jox boppam daa jox léppam sëriñ bi waaw daa sëriñ bi daal sëñ Cheikh mii moom loolu rekk la seere si sa jëmm ji nee na daal nee daal soxlawut dara bëggut dara wutut dara dencut dara neen lépp jox na la ko la sëñ Tuubaa waxoon yonent bi lawoo dëxëra niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruux wa jusmaani wa kulli bi laa sukkali ba ba sëñ Tuubaa di lim li mu jox rasulullah yi daa dem ba sa mujj ga mu ne ko jox naa la lépp sax amul moom jaratul lim jox naa la lépp te desalu ma dara moom moom nag noonu la ko defee sa digg ak moom pas-pas bi mu am sa digg ak moom àgg na si mënu koo génn si aw làmmiñam wax ko cofeel gi mënu koo génn si aw làmmiñam wax ko li mu ko mën a feeñale ah mooy nii nii mu def rek kon nag faal nga ñaanal ko moom njaboot gii mu àndal ah, Baye saa njaboot gii nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi te muy seere si ñoom seen pas-pas ndax waxtu geesoo gis leen nga ñaanal leen dëbb leen kattan ni mu ko bëggee ba li mu bëgg moom liggéeyal la ko ñoom ñu mën koo ànd ak moom ba mu amee ko nu mu ko bëggee waaw jërëjëf Fall. fan gu la ca bii xam naa daru ump ko waaye mu dégg ko bu baax a baax jamono ba njaboot ga daje muy tëbaski muy koor muy addiya day dajale ñépp ni leen sama kilifa dama koy joxe addiya te lu sell laa ko bëgg a jox yéen ñii di liggéey yi ma di leen ko laaj kenn ku ne la ngay liggéey na ko na ko def muy liggéey bu sell daa mu wax ni man man man Cheikh Ngounda Fall ku ma joxul nag lu sellul mën naa koo bañ a xam nee ñu Cheikh Fall daana ko xam de mën naa koo bañ a xam nag waaye ku ma dërëm bu sellul wala dara lu sellul ba ma boole ko ci addi yim jox sama sang bii gàcc naa la ko ba ca kanam maam si Ibrahima Fall mi ngi boole yow ma xiyaamati kon nag loo waaye def na sell kon Fall loolu rek laa bëgg mu lu mu fi indi rek lu sell te te ñii moom dégg nañu ne. li mu la na si addi waaw ba ñëwee njaareem waxoon na sa addiyee taalib yëpp di ko dégg mu ne am na ñoo xam ne danoo tàmm di ñëw naan sëñ bi ma avance la si sama addiya mu ne bu ma benn taalibati avancé te si addiyee sëriñ bi waaw kenn ku bëgg avance na ko dence ba mu mat nga indi jox ma ko mayit ko sama sëriñ <laughs> loolu nag ku dëgg dong ko man faal waaw waaw waaw ko moom mi sëñ Thiam te booba na fi yàgg yàgg fi ànd ak sëriñam bii mu murit yëpp nan ko ñaan sëriñ si ak ngun na faal ni mu taxawoo sëriñ am di ni mu jàppe sëriñ Amdi ni mu ko liggéeyale dafa mel ne sunu borom da koo waajaloon ngir mu ànd ak sëriñ bi liggéey bii te loolu murid yëpp mat nañ ci seere féete na ko foo xamante fii fu mat sëkk la te bokkam yëpp nangul nañ ko ko yàlla suñu borom dëgëral ko sama borom kattanal ko sama borom wéral ko boole kook sëriñam bi ñu ànd liggéey lu yàgg yàgg yàgg ndam li daal yàlla nay tegaloo rek barkeb Cheikh Ibrahima Fall barke sëñ Modou Mbend ak maam Saliou Fall waaw mën nañ ko nanu ko def rek ñoom ñu sàkk fee toog sàkku fee yàgg sàkku sàkku jiite mbooloo mi rek bu nu ko sàkkoo rek am ko waaw bu nu ko sàkkoo rek nun nu am ko muy taw tawféex nun ñëpp Fall waaw jërëjëf Fall jërëjëf xolu murid yëpp seet nañ Baye Cheikh waaw nee na bànqaas bu si soqi ko ca garab ga la bokk. kon moom dafa yaakaar ni. ba maam Cheikh di jébbal di jébbal waa juróom ba maam Saliou. Serigne Modou Fall Mbenda. nee na su demee ba mel nii. nga nekk fi di sëriñ bi. nee loola rek ma waral lii. nee na sa alal la démb tey soog a ñëw. waaw na waaw tàllal sëriñ baa ngi ñaan kenn ku ne ñaan ñu yàgg fi te wér. amin Fall amin Fall amin Fall amin amin amin amin sëñ bi sant na la lool waaw du def dara te néewut ana sëñ Cheikh kilifa yi teew bokki taalibe yi bokki jullit yi xarit yi ak soppe yi ak wëllëre yi sëriñ Cheikh Ngonda Fall mum maam Saliou Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina mooy dellu di nu nuyu ndax nuyoo woon nañu sànq ni nu nuyoo waat béet nag nee na ak cantrik la ëmb ak ngërëm akuk ñaan te dinu dollee séeréel ab xolam bu sedd ci nun ak xelam mu dal ci nun nee na looloo tam li ko gën a waral mooy dañu fee bàyyikoo léegi dem ci kilifaam di ab sëriñam mu ci am di faal mu sëñ Moodu Mbend Fall xalifa général bàyyi Fall yóbbu fa jëfam ba fa yóbbu jëfam nag la wajuram bu baax wa daan wax yàlla dogal mu dal ko ca moom mii Sërif Asan Fall sa wajur bu baax wa daan wax ni fu ñëpp di daje dafa sutti seen jëf soo fa sottee sa jëf ñaar doo ngay mën a am ñu naw la wala ñu xeeb la te ñu xeeb la dara jëru ko kon nag moom li mun a gën a mi am xelam gën ko dal ci nun mooy ba ngeen dajalee siin addiya teg ko ci loxoom mu boole koog li mu amal boppam jokk ab sëriñam nun ñëpp noo teewandoo laatal sëñ am lim moo Moodu Mbenda wax ak kenn moo waxal boppam naw ko lool kon fa ñëpp di daje dafa sutti seen jëf ba mu fa suttee jëfam ka nga xamante ne bu ko nawee mu naw muy si am dim siñ moo di benn xalifa général baay Fall naw na ko kon nag ab sëriñ bu àndee ki taalibeem jot baatum digal taalibe yi góor góorlu ca ba mu boole lu mu am ak lu mu amul lépp ndax lu mu am ak lu mu amul la bu nu jàpp ni sëñ bi lu mu joxe da ko am ñoom ñii de dee liggéey di joxe seen taalibe di neen jox ñu joxe dee ñu leb di joxe ndax dañu am lu ñu ëmb ci pos pos loo xamante ni saa bu jotee bu ko kenn indil woon daraat bu amee ku ko ku ko yen lu mu lu ma mën a jox sëriñam te ba noppi yéwénal loole dee ko def kon dañuy def lu ñu mën di def lu ñu mënul kon nag alal daa war nuru boroom sëñ bi nag nee na loolu la ñu sante ba nu demee noo ko gisandoo noo ko déggandoo sëriñ Amdi Fall mu Cheikh Modou Mbenn Fall xalifa général Baye Fall yenn fi yàgg te wér moo ne sant naa ko daal ni lii kat li nga indi bari na daal di ko yiim ñaanal ko nag ni ne ko yal na fi yàgg te yal na ànd ko wér mu ne ko lu la nar a dog yal na yàlla dog loolee kon loola bu nu àndee moom ci liggéey bi ba mu dégg baati ngërëm yooyu yii moom itam bu ba ci këram dina dina ni am xelam dal na ci nun ab xolom sedd na ci nun waaye nag nan nanu fabuwaat nanu fabuwaat ku naagu daagu te ku daagu ñu raw la te kii kenn waru ko raw diitu ko rawit nag kon nag nun ñi nga xamante moo diisu ko raw waaye bu nu daagoo mu raw nu ñu raw nu de kon nan kon nan bañ bu nu kenn raw koo mënta dem ba ko soo jógee da ko naa ay ca nu dem moo tax nag mu ni ay ci li dem te fu mu jëm ak dina fa yegg ak mooy ci yàlla rek ndax moom ay pos posam jëm ca yàlla rek ak bëggam jëm ca yàlla rek ay yitteem jëm ci yàlla rek yàlla mi munu jëmee nag te dina ko xamal saa su ne ca la maamam Sëriñ Tuubaa woote ca la maamam Cheikh Ibrahima Fall woote bu nu bëgg lu dul yàlla ajjana sax bu nu ko bëgg ni ngeen diggu lii may bëgg bu baax bu nu bëgg aljana bu nu ragal sawara nañ bëgg yàlla ndax lu nu ci bëgg loola dina nu sonal dina nu gàllankoor ndax ki ne woo wóonu àjjana sëñ Tuba wóonu àjjana néewul minal jannati ilal jannati sëñ Tuba dañuy minal laahi ilal laahi ni ay na murida laahi noonu ko noo ngi saanam si dafa andi ko maa ngi noonu ko noo dani dani ci yàlla laa jóge ci yàlla laa jëm ana ñun na ma jëm ci yàlla maam Cheikh Fall maamam ni ko maa ngi nun ñëpp nu ko noonu kon nun ki nu woo woowunu àjjana ci yàlla la nu woo maam si Ibrahima Fall ba ko fekkee mbag da ko ca yàlla mu ne ko ana foo jëm sant fa fànni ko ca yàlla ku baax ni ko ana looy wut mu ne ko yàlla moom mii ñaari maamam yooyee fa ñu jóge woon dafa delluwaat tey wut loola moom mi fa la jëm bëgg ci ànd noonu bëgg nu yóbbu ci yàlla bu nu bëgg lu yàlla na ànd mu bëggale ko yàlla ku bëgg yàlla nag yàlla rek ngay bëgg sëñ Saaliw nag noonu na la taw ko waxan ni yàlla yomb naa am ndax moom soo soo soo waaxu wuti ko day waaxu di daje waaye booy géesu muy dëpp nan lank bu nu geesu bu nu gis lu yàlla sëñ si ngun na faal yéen a ngi fi yàgg te ànd ku wér kon nan fa bawaat li ci des nag yitte ji yegg na am na yitte yu nekk ci suñu kanam ñaari yitte ci gën a jege mooy liggéey bii ci mbàkki di sëñ Tuubaa gi sëñ am di mu sëñ Moodu Mbend Fall di liggéey ci diggante Mbàkke ak Njaaréem mu am ci buntu Mbàkke nee na kon nag nu fabawaat liggéey boobee liggéey boobee gi ngeen taxawaa yam ca taxaw booba ba léegi ak cant yañ ko ci sant ak ngërëm ya waaye nee na nag la baayam ju baax ba waxan nee na moom fële bëgg a teg ab tànkam moom suñ seex faal ngonda suñ fallu danoon doy doy yàlla daa indi tur wi jamono te indiwul jëmm ji daane ndax mos ngeen a gis ku amul dërëm ba ne doy na ñu ne ko déedéet mbàkke mooy ndax mos ngeen a gis ko am ngërëmul yàlla ba ne doy na ñu ni ko déedéet mbàkke mu ngi dërëm du doy àdduna ngërëm du doy alaxira bi nu tàmbalee ànd ak moom ba léegi nag ca suñ jëmb ak lu ko jiitu ak ña ko yaran ndax ndax ndax doomi seen tubaa jëñ ko jëkk a jox mu si Abdoulaye Mbàkke moo ko jëkk gërëm boole ko firnde delloo ko wujju rok ko joxoon si Abdou Sakor Fall sëñ Abdou Sakor ko fabawaatal dox ba leen jéego teg ko ci loxo Seex Mamadu Murtadaa moom borom Tuubaa Xaadimu Rasuul mu gërëm ko boole ko firnde am ñaari ngërëmi doomi Sëñ Tuubaa sëñ gërëm ko bàyyi ko fi wuy juróom maam Saliou Fall gërëm ko ba mu ko wanee ginnaaw ak léegi nag ku mu àndal di liggéeyal yoon wi gërëm nga ko waaye nag nee na mu ngi bàyyi xel ca sëñ Fallu wuy juróom waa waxan dërëm du doy àdduna ngërëm du doy àllaaxira kon doyloowul ngërëm yooyee dina ko sant yàlla na waaye mi ngi sàkku yeneen nii daa bëgg nag nu fabawaat te ànd moom sàkku yéen ngërëm ci kanam kon nag liggéey baa ngi fi muy liggéey bi ci Mbàkke nan ci nan fabawaat te taxaw ci màggal gétt mi ngi ñëw nan ko fabul ndax bisu borom Tuubaa la boo xam te loolu am bis boobu moo nu ko may ginnaaw Tabaski jàll na loolu daal bokk na ci ay kàddoom mi ngi sant di gërëm dina ñaanal fan yu gudd yu ànd ak wér ak fekkeek tal gi sangam bi ñaanal ne yal na jaar ci mu ëgsi ci nun te yal na ko yàlla dogal te mucc musul noog njaboot gi te nu sax nag ci liggéey sëriñ bi rek bu nu geesul dara nee na àdduna rëb na nag waaye rëbuk àdduna bu ci suñu yoon nekk nan doon benn bët di xool yàlla rek mi ngi nu jëme nan ko ca teg suñu bët bu nu dara jaxase ndax adduna kat alquran dafa wax ni wa ab taqi fi ma atteeka laahu daara laaxirata te mooy ci lii nu nekk nii ba fi mu ne nii lu ngeen am ni ngeen ko jënd seen kërug àllaaxira moo tax lu ma am joxe na ko yéen lu ngeen am jox ngeen ko di la ca la ca des nag mu nekk ci sunu kanam ak sunu kanamaat ne ba ci sunu yoon ne loola loola doonul lu ñuy lu ñuy lu ñuy bàyyi waaye du doon lu ñuy fàggu adduna su ko fàggu mooy wala tan sa nasiibaka mina dunyaa lu ñuy fàttaliku rek la lu ñuy fàttaliku di nga wut mbubb sol ko. di nga wut loo lekk lekk ko di nga wut foo tëdd tëdd fa loo xamante ni da lay mën a gunge ci liggéey bi nga bëgg a liggéeyal borom Touba ak maam si Ibrahima Fall dañ ko fàttali ko adduna waaye adduna kenn du ko fàggo nan bàyyi nan fàggu yàlla mi nga xamante ni ci ci ci ci moom la ànd nun jëm ca maama yu baax yi jëman ca suñu pàggu téef bépp bépp na doon yàlla loolu daal mu ngi nu koy dénk ci sunu kanam ak fu nu mën a nekk ak lu nu mën a yëngu ridan wa rahmatan min allahi ba di xëyri min dunya wa ma fiha jami di ñaan fan yeeg wér gi sutura si nag mat te ñuy soññ njaboot gi te yar njaboot gi nañ leen di yar nañ leen di jàngal nañ leen di yar nañ leen di jàngal am na it baat yobbu loo xam te moom suñ seex faal ngu ne mii moom wax lu ma ko man mu taa sekk maa koy wax ndax maa ko maa ko maa ko nemmiku maa ko nemmiku de muy ak tërbiya maam ci Ibrahima Fall moo ko fi samp te ak tërbiye tërbiye mooy yoonu murit li ci des yëpp gaañu baax ñi jaarat nañu fa waaye samp daari tërbiye ama de sësin la ko maamam jëkk samp ci leeru salaam jëkk doon muritub tërbiye bi jëkk liggéeyal borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ña ca ànd moom ànd ci moom ba nëgë ni maam Cerno sal maam ci Ibrahima Fall moo ma wax ni ma moo ma ni Moustapha man ko faal mun ma samaam Cheikh faal ne na nit ki bu juddoo fekk ndeyam ak baayam màggat ba noppi silmaxa donte ko ñetti guddila war na ko fanaan ci daari tarbiya doog a dem yore ndeyam ak baayam ne Cheikh Fall ko wax ca daari daari Baxdaas nte ne na boobu may jëwriñ ja maam Cerno mooma ne boobu may jëwriñ ja ni maam ci ibrahim Fall ne ni leen adoom ñetti garaat mu ëpp doole ci lislaam garaat bu ci jëkk mooy saxaaba ya àndan ak muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam di xeexal lislaam garaat ba ca topp mooy garaatub tërbiya kon am na solo garaat ba ca toppaat mooy garaatub gàddaay mooy nit ñi mbooloo mi gàddaay seen dëkk suufi maam yi ñëw Tuubaa waaye nee na li tax garaatub tërbiya jiitu garaatub gàddaay nag bala ngaa tërbiya da ngay gàddaay ba noppi doog a tërbiya teg ca léegi nag kon garaat boobu mooy ba ca jiitu topp ci garaatu saaba yi man nemmi nag man ni baay baay faal doomi baay faal yaa ngi gën a bari daari tërbi yi yaa ngi gën a wéet nañ ko bàyyi xel de mat def taxaw seetlu doomi baay yaa ngi gën a bari daari tërbi yi ñu ngi gën a wéet nañ ko bàyyi xel te mooy sunu alal mooy sunu formation professionnelle bu murit mooy daari tërbiya te garaat bi gënam a mag ca lañu na ko defal nan ko bàyyi xel maam si Ibrahima Fall nag am na ko ma ba léegi loolay am de am na koo xamante ni dafa dafa juran doomam jox ko ko xam na turam xam fa mu dëkk xam na mu sant xam ak njabootam waaye al adabu afdalu min kulli shay'in ba mu ko joxee mu ne ko diw mu ne ko faal mu ne ko mbaa taaw bi nga ma jox mu ne ko déedéet faal mu ko def nga ay sa am si la faal ne ko def nga ay mbaa jàppoo ni di nga di yar ma yar li nga yar gën li ma yar gaañaa ngi soo leen joxee ki nga leen jox ñu yar ko yow nga kof kofe ca ka jeex ko sa bopp mënoo fexe ba mu gën ko mun te am nii docteur yi teree ko wopp sa bopp garab faj sa bopp te demoo hôpital noonu la da noonu la yoonu lislaam mel cheikhul murabbi yi nañ leen jox suñu njaboot gii ñu tàggatu nu leen yaral nu leen xamalnu leen jox leen ab cër ci lislaam kon na nan bàyyi xel loolu moom daal li gën a gàtt doomi Baay Faal yaa ngi gën a bari daari tribu yaa ngi gën a wéet fii ne maa ngi gis sëriñu Baay Faal si am ñoo xam ne dañuy jàpp ay surga loolu nag du seen kersa sunu kersa la nun nun nun nun muriti Baay Faal yi nanu fexe ba sunu sëriñu Baay Faal sii di seexul murabbi te ñoom ñii kat fa seen maam tegan yoon wa ñu nga fa ndax dañu ko yokk koy noyit nañ jéem a yokk waaye nag jur jox tubaab bi ma jàngal la am jox tubaab bi mu dencal la am kii jox tubaab bi mu yaral la te nga sëriñ bi lay wóolu kuulu téef ga boo ko wax ci awlam yi du neex a gëm nañ jël sunu doom yii jox jox seexu murabbi yii nee naa la keroog ah, li li li li li xam nga sëñ moo taalaa ko moom ko doon wax léegi barki démb bi waa gisuñ Cheikh Fall Khady Gueye ñëwee 1975 ma ànd ak sëñ Assane Fall daabaay mu sëñ Modou Moustapha Fall ñu jógee Dakar keroog lañuy ñuy saraxal mut sàmm ba ñuy tolloo xombal une heure du jot na mu ne Moustapha ma ne ko Fall sëñ Assane Fall daabaay nu nekk ci oto bi mu ne ma ñetti mbir la ñuy ab taalibe bi ma ni ko ah mu ni ma bun la laajee saw ñaq nga joxe ko nu laaj la sa alal nga joxe ko nu laaj la sa doom nga joxe ko nu xamee li nga wax dëgg ci yow kon nag bu nu bëggee ñi xamee li wax dëgg la ci ñun sunu ñetti yooyu buñ leen ko téye nañ leen ko jox ridan wa rahmata min allahi badi xëyri min dunya ma fiha jami wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu yàlla itam yàlla boo ko dee liggéeyal da am aw sas. doo bëgg leen. doo bëgg am yàlla rek. ka nga àndal itam. di yàlla. am na aw sas. lii aw sas ca moom. mu jóge fa. yow nga jóge fa. mel na neen. noo wër tamel. kooko gàccee ma moom it. kon nan góorgóorlu bu baax. jërë ngeen jëf nag. jërë ngeen ji bu yàlla dogalee ku bëgg a yeewi ko hmm? mën nañoo toog ba xiiwlu su ko defee ñu mën a yeewi ko ne ñi bëgg a fanaan it fanaan bu suba jërë ngeen jëf di sant sëñ Aliou Thioune seen jëwriñ ak kilifa ya nga xamante ni ñoom ngeen nekk ci télévision Lamp Fall ndax lii kat firndeel na ni tur bi sëñ Aliou Thioune tuddee bi maam Cheikh Ibrahima Fall maamam loolu lu ci moom waxee na ko jëfee na ko ba ñëpp seere na ko kon sëñ si ngoon na Fall ne mi ngi ñaan mu jëm ca kanam am tànk kanam yi yoon yu am te bañ am tànk ginnaaw barke suñ maam Cheikh Cheikh Fall barke maam Cheikh Aliou Fall yal na ko saa borom boole jërëjëf ndiim nuyu suñ nuyu ko sëñ Aliou ah, sëñ sëñ sëñ Muudu Mamoun te nuyu ko sëriñ Aliou Cuun Ngal doole te di ko ñaan di ñaanal mboolem personnel rajo télévision Lamp Fall jërëjëf. bisimilah. min amin